léegi Sénégal kon kañ lay développé. bu ma waxee lu ma xamul bu ma waxee lu ma xamul dañ may jàpp. Mhm. ñu jàpp ma ci wax lu ma xam moo ma gënal. <laughs> exactement <laughs> donc mu ngi ah, noonu. dañ ma jàpp lu ma xam laay wax li ma xam nii dama li may wax nii dama koo xam. Mhm. waaw en tout cas dañ ko jox ay plateforme ay mhm. mutuelle financé leen seeni i eh, mais dañ ci indaale joxal diw nangam joxal diw nangam. diw yooyu diw ñor diw lin diw kii bi ñu toppee diw yi ba diw yi ba diw yi ba diw yi maase ay mbokk lañu doon ay jege ak ay militant sacré <laughs> doyen donc oui non non aussi ci revue des titres euh, noté à euh, raki euh, par mm-hmm. rapport à Covid bi les les pèlerins au nombre de 147 qui ont été testés positifs donc aussi mu un chiffre un peu alarmant mon n'a wax parce que Sénégal bon on n'a wax naagu nañ Covid bi mais dafa melni sax musu fee mm-hmm. donc mu a encore ci euh variation yu ñëwaat yu à chaque fois maintenant par rapport à ça doyen hormis les mesures yu wara war jël ni ni ni euh, par rapport euh, à la médecine fii au Sénégal lan lañu wara war tek ba nga xamante nañ tok au moins euh, ñu ne Covid jeex na fi carrément wala ben phénomène bi du tax Covid amat jeexul ci aduna bi ñu muy jeexee Sénégal du di moment que dem ak dik bi sax euh, arrêté wul. ñuy ñuy dem ak li ñu mën. ko au plan international ci OMS moy contrôle aux frontières. Mhm. nous, ñu ngi ci ci dispositif bobu euh, ministère de la santé et de l'action sociale ci organisé mhm. amna médecin des wala Frontières marines, frontières terrestres, frontières aériennes. mais avons nañu dispositif notamment ci AIBD boo xamante ni contrôler nit ñi dañ ni dañ ni malentendu bi RSF, ponctuellement nous def contrôle les frontières yi mooy comme ci pèlerinage bi ak un ñu dispositif pour ñi de pèlerinage bu ñuy dellu est-ce que dinañ ko étendre ci yeneen voyageurs yi nga directement parce que ñi ñëw te jóge wu ñu màkk mën nañ jóge ci dëkk yoo xamante ni daje nañ ci aéroport ya ak ñu jóge màkk. Mm-hmm. ñu ko am. surtout bu fekkee étendre ñu évati éventail contrôle bi ci ñooñu mais ñoom xam nañu xam nañu yoon yi ñuy jaare ba li ñu li gën a pertinant ñu koy def c'est vrai que yëfi nit la nag. Mm-hmm. toujours dina am lu des. les RSF donc ñooy def mais ñële ñooy def lu ñuy wax surveillance santé nan xaw ma. Mm-hmm. maanaam. Euh, est Pasteur ñoo fa nekk en permanence il y a pas de conflit ay ay mbir yu leer la ku nek xam nga fi nga wara taxaw ku nek xam nga ni nga wara taxawé mm. dafa di rsf a ah, moy moy liñu liñu mom mm-hmm. mais institut Pasteur lañu gëna min a mm-hmm. mais institut Pasteur moomuñu ko mm-hmm. comme le nom l'indique institut Pasteur yëf yi yëf yi suñu mbokk tuba bi la buñu xé rsf ci ci ci xarañ ak jumtuwaay am nañu moyen te nee la ci Covid état wu Sénégal au moins profito dañ ci ba seeni laboratoire ñu mettre ko à niveau surtout parce que bi muy doog a mhm. Institut Pasteur kese moko don def après ñu yokk ci IRSF mhm. mais après même laboratoire ci hôpitaux publics yi mhm. yégal nañ ko niveau bo xamanteni ni mën nañ ko def mën nañ def leneen d'accord fatalé fàttaliku né pour ñu don tukki par exemple laboratoire bi 10 dixième. Mhm. fi lañ doon defee sen test. pour mën valider pour ñu mëna a génn réew. mën génn mhm. laboratoire bi 10 dixième. Mhm. té du du institut Pasteur du RSF. structure yu bare structure publique sen laboratoire yi profité nañu ci xaalis yi ñu amoon au moins. xaalis yooyu jaarul ci pox ndoll bi. defar nañ ci laboratoire wala amélioré nañu euh, plateau laboratoire yoyu ba ñu mën compétitif. surtout très bien c'est important maintenant maintenant. Covid Covid la tudd de. te li muy laaj pour ñu sàmmonte ak moom. Mhm. lu ñu lu ñu tële la. Mhm. ñun Sénégal xam nga. norme ganale par exemple. Mhm. waaw ngénte ngénte xew yi xew surtout actuellement ni waxale waxalee cas yi nga xam ko si les pèlerins te euh, sénégalais ñu ngi def nganale yi ñak nak parce que c'est la tradition mais bon euh, su cas yi amé au moins ñu jéematil tradition bi teg ko mm. privilégier donc euh, la santé parce que tay jii presque pèlerins yi ñëw dañu dañoo vu la canicule bi am màkk ñi ci man ñi ma am ñi ma xam ñep ñi dañoo ñëw grippé ñi dañoo ñëw fièvre sonn donc

mu mhm. ngi naan dafa sonn na nga sax mais comme dafa sonn nañ ko may mu noppalu. exactement mais kenn mënu leen tere. kenn mënu leen tere. jigéen ñi la. jotaat seen i ndawtal. ndawtal. <laughs> ah gën a dafa am ndawtal. oh tulaw. Ah, ah bon. yóbbal booy dem ndawtal boo ñëwee. Mhm. ah oui da ngay repérer say ndawtal. Mhm. ndawtal. oui. na à ce niveau. da ngay jël say ndawtal. xam nga man ci mis à part la bi sax li ma si gën a jaaxal mooy image yi nga xamante ni. ñu ngi koy mhm. gis déjà ñi ngi ne euh, problème mu Covid 19 bi genre yooyu pèlerin yi tout. Mhm. fi ngay gis tey ku dem jëli sa gan ñëw accolade ko sans pour autant takk masque. takk masque bi li ma li ma jàpp ne mooy daal instant yi dañuy nekk di di di laam-laamee wala je sais pas te lii moo ngi daloon je pense début corona bi am na wala amul ba tax mu juróom fi yenn.

nga xam ni moo nekkoon mhm. des opérations d'urgence sanitaire mhm. euh, dafa alerté dafa ni nañu seet ni ñuy communiquer bañ a vraiment indi loo xam amul wala indi loo xam dayoo mhm. ah, ministère ak attention ci bañ fi indi état d'esprit de crise boo xam crise bi amul boobu dayoo nañu def attention ci ni communiquer ak lu ci mën am d'accorduma man ci ñi jàpp ne ujaaj yi ñoo ko mhm, mhm. dañ ko fay fekk. waaw waaw. am bu fi newoon hmm? boo xam ne am na xeetu soj depuis ñetti est-ce que Covid mos organisme yi ñoo. comme dund nañu Covid bi pharmacien bu en face. Euh, clinique. benn clinique fii rek. fii ah, waaw mooy Habib Sall clinique yooyu ñun ay adresse la ci ñun defuñu publicité ay ay kii bu jaroo ko écrivain Habib Sall docteur Seck moom dafa doon wax naan lëm yii bi ñu waxee Covid bi mooy bàyyi nit ñi ñu dund ko. ñu mm-hmm. développer ce qu'on appelle une immunité mm-hmm. collective. Mm-hmm. après nit ñi ñooy développer ci seen organisme anticorps yi nga xamante ni mooy jànkoonte ak virus bi. mais bi mu ko waxee it fekk na àdduna bi ñu tëgg loo xamante ni moom mënoon tax ba Sénégal parce que pàcc boobu ñoo moo ñu si gën a intéressé. Mm-hmm. ñu mën a am am mille milliards ñu ñu mën confiner nit ñi. Mm-hmm. ñu ñu mën a tëj jàkka yi ñu mën yooyu ñu def yëpp. mille milliards yooyu jël jël fi a dee am na dëkk yoo xam ne defuñu ko te gënuñu ñoo loot. mille milliards yi kay mu ngi fii di mille milliards. ba tey ah, am na si encore une fois loo xamante ni nag mm-hmm. investir nañ ko. am na lu mu jariñ waaye ci mille milliards yi. du ñàkk am na butéelu ndox su ndaw si yi nga xam ni ñaar fukk lay jar. ci yenn centre de rétention yi ñu facturé ko 400 wala 500 francs. 500 ah, waxoo